c'est un peu stress parce que soose buñ jox wolof la pour mu kii ko ko bu amee ñu mel ni ñoom daw dëgg yi nekk fi di déglu c'est un peu compliqué mais on va essayer euh, mbokk yi euh, conférence de presse bi force vive du Sénégal di amal tey jii nii li ko sabab mooy lancement wu euh, mobilisation bu mag benn ndaje bu mag a mag bi nga xamante ni peuple sénégalais mu ngi koy dëgmal ci le vendredi 12 mai 2023 incha allah fële ci place de la nation dañuy profiter rek ci jotaay bi pour jaajëfal bépp sénégalais sénégalais yi nga xamante ni yu fasanti ko tey ñu ngi toll ci lu tolloo téeméer ak euh, ñetti fukk organisation ak ay euh, personnalité indépendante yi nga xamante ni signé nañu charte F24 euh, ne ni bokk nañ ci sénégalais yi nga xamante ni ci fiñ ci toll dañuy taxaw temm euh, pour euh, xeex pour démocratie bu Sénégal xeex pour àq ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal mais surtout pour jóg taxaw ne ni troisième candidature du fi amee mbokk yi Sénégal dafa tollu ci ay goudi yu jafé moy li tubaab yi di nous sommes à la croisée des chemins té lolu dafa laaj taxaway bu dëgër venant de toutes les filles et de tous les filles de ce de ce de ce pays ci jamono ji ñuy amal conférence de presse bi aduna wërngal këpp célébrer journée internationale de la presse ci ay bërëb yu fasantikoo ci àdduna nit ñi ñu ngi màggal liberté wu presse nit ñi ñu ngi màggal euh, liberté d'opinion nit ñi ñu ngi màggal presse ak cër gi seeni nguur jox seeni journaliste ak seeni presse un peu partout waaye Sénégal fii ci Sénégal ci jamono ji au même moment euh, coalition des associations de presse mu ngi amal fële ca maison de la presse Babacar Touré benn ndaje bi nga xamante ne euh, pour naqarlu la journaliste yi nga xamante ni nguuru Macky Sall mu ngi leen di xoqatal di leen tëj di leen jaay doole ci lu dul dëgg du yoon et tey jii nii ñu ngi ñuy yëgal balaa ñuy tàmbali conférence de presse bi ni journaliste Babacar Touré bi nga xamante ni ci ay liggéeyam lañu ko jàpp di ko enquête ay retour de parquet yu dul jeex tey jii nii jàkkaarloo na ak juge ñu metre ko euh, nu mu tuddati ñu ñu yóbbu dossier information judiciaire mu war a dem kaso ci lu dul dëgg du yoon Babacar Touré bu ñu ko yóbboo rëbës walla ci beneen kaso fii ci senegal dina fa fekki yeneen citoyen yu taxaw yu am taxawaay bu mat sëkk ñoom it ci li ñu ne ku mel ni Abdou Karim Gueye Karim Xurum Xaq di activiste di militant bi nga xamante ni le seul tort qu'on peut lui coller fii ci réew mi mooy bëgg réew mi taxaw temm Sénégal jaral ko lu ne ñu ngi ko tëj ci kaso bi dina fa fekkit ku mel ni nit dof muy artiste bu engagé saa yu Sénégal laajee mu taxaw ñu respecté ko ngir taxawaayam ci réew mi waaye it dina fekk dina fa fekk ku mel ni Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye di doomu réew mi engagé politiquement nekk ci organisation politique jibal ay kàddoom tax ñu ne ko ràpp ci kaso bi waaye it dina fa fekk it Hannibal Djim bi nga xamante ni mu ngi bëgg yàgg ci kaso bi moom it ñu ngi ko fa tëj ak tant d'autres citoyens tey jii nii lu toll toll na ci ay téeméeru citoyens yi nga xamante ni ay détenus d'opinion lañu ay détenus politiques lañu Macky Sall ak nguuram mu ngi leen xañ jant bi ci lu dul dëgg du yoon F24 mu ngi jaajëfal di encourager journalistes yi di encourager chroniqueurs yi waaye it di encourager intellectuels yi ak bépp aji bëgg réew bi nga xamante ni mu ngi xeex bés bu yàlla sàkk ci ay intervention médiatique am waaye it ci ay ci ay jéego yi muy teg pour que dëgg mu sax ci réew mi pour aar suñu démocratie buñu joggé rassemblement bi ñuy dëgmal inshallah vendredi 12 mai 2023 que la place de la nation bi nga xamanteni un symbolique en 2011 2012 ñi ne ci nguur gi tey àndoon nañu ak ñu bëri ci ñun ñu def fa rassemblement contre la troisième candidature de Abdoulaye Wade nous avons kaddu am ñu ngi ci ay vidéo tey ñu koy président Macky Sall ci jëm ñu image bi mu Fou Malade ci mouvement micro pour mu non à la candidature de Abdoulaye Wade donc la place de la nation boobu ci la ñuy lancé démarrage plan d'action ou force vive du Sénégal li nga dina ay activité ay manifestation ay mot d'ordre yu fasantikoo yi nga xamante ni ñu ngi woo peuple bi pour que mu déglu saay su ne ak jamono ju ne li mu laaj ci ay activité incha allah F24 dina ko amal te dina ko fësal pour que Sénégal yépp ànd ci pour que ñu tabax benn force comme ni ko turam ni muy wuyoo turam force 24 benn force citoyenne bi nga xamante ni li koy lal rek mooy xeex pour que dëgg pour que euh, jàmm sax ci Sénégal waaye jàmm ji nga xamante ni day lalu ci dëgg liñ ci mbëbët nag mooy fexe ba euh, sénégalais yi xam ni ci suñuy taarix ci suñuy maam taxawaay yiñ fi amoon ci suñuy suñu aada suñu culture bañ jom ak dëggal jubal waaye it ci suñuy diine sax yi fi ne ak suñu yenn maam yi nga xamante ni muy katolik di chrétien am nañ fi taxawaay am taxawaay ci dëgg ñu xam ni li war a mën a saxal dëgg rek ci réew mi mooy euh, li mën a li war a mën a saxal euh, jàmm ci réew mi mooy dëgg incha allah loolu dinañ ci taxaw F24 dina ci taxaw avec toutes les forces vives du Sénégal pour que Macky xam ni jeex na léegi peuple sénégalais di ko subir di subir ay digle yi nga xamante ni du ko respecté mukk waaye di continuer di subir ay manipulation ay lal ay ndëgg sërëx yi nga xamante ni ci 11 ans yi da koy dee lal à chaque fois et à chaque fois peuple sénégalais moom mooy doon victime waaye que président Macky Sall mu xam ni intimidation yi jeex na peuple sénégalais doit tout subir qui euh, ay actions action légale dans le respect des lois et règlements ou yu déterminé des actions massives pour les mobilisations mobilisation lay doon dinañu won aduna ni Sénégal famu un ay doomu Sénégal fuñu néwon newoon ñoo nga fa batay suñu démocratie bi nga xamante ni nguur gi mu ngi koy gàkkal di ko nërmeelal que Sénégal ay doomam ay jigéen ak ay góor pare nañu taxaw di maintenir ce flambeau xeex pour que démocratie googu vitrine de cette démocratie en Afrique bi ñuy bàkkee que ñu mën a continuer di ko mériter loolu nag pour que ñu mën ko dinañu fexe ba ci suñuy action waaye suñuy kàddu à travers organisation yi nek ci F24 personnalité indépendante yu nek F24 à travers sénégalais yu nek ci seen kër jàpp F24 cadre la bi nga xamante ñepp ñëpp ñoo ci wara and pour que jamm mu mëna sax ci réew mi waye jamm bu lalul ci dëgg dinañu fexé ba ñi nga xamante tay ñu ngi théoriser mbirum euh, troisième candidature Macky Sall ñu xamni lolu téggul ci dëgg. ñu xam ni it loolu du li nga xamante ni dina jëme réew mi ci ci dëgg ci jàmm ak euh, lépp li jëm ci li ni mel dañuy jeexal rek di rappeler ni F24 dafa judd gannaaw bu ay jigéen ay góor amee initiative di nasandoo di amal ay waxtaan ay organisation politique organisation de la société civile ay syndicat ay ay association ay mouvement ay personnalité indépendante waxtaan di booloo di waxtaan di juboo ci ay kàddu ba ñu teg li nga xamante ni moom euh, F24 bi te képp qui ci engagé signer la na charte keroog bi ñuy lancé F24 ca résidence Mamou. waaye tey it bu ñu paree fii dina am ñi nga xamante ni ñu ngi fi dinañu charte bi pour engager au sein du FN4 xeex ba nga xamante ni article yi nga xamante ni président Macky Sall modifié na ko ba mu permettre ko muy euh, di écarter ay opposants politiques waaye ñu toll ci guddi yi nga xamante ni am na yeneen opposants politiques yi nga xamante ni aussi euh, ay article code électoral yi Macky Sall modifié tax na du ñu mën a bokk ci élection yi ñu jëm bu dee amuñu taxawaay bi bi war waaye it biñuy signé charte bi dañu engagé wu ni dinañu fexé ba détenu politique yi nga xamante ni ay téeméeri téeméer ñu ngi ci ay prison ak ay détenu d'opinion té nguur gi tegu ko fenn que ñu bàyyi leen ñu ñibbi ci seeni kër waaye it bi ñuy signé charte bi ñun ñëpp dañu engagé wu pour am taxawaay pour que président Macky Sall qu'il ne fasse pas moins que ñenn ñi nga nañ fi par exemple à gis nañ fi code électoral consensuel à l'époque nous dem ci ay élections euh, en 93 ak yooyu waaye surtout mu organiser ay élections yi nga xamante ni day tegu ci dëgg mu des élections apaisées des élections transparentes yi nga xamante ni képp ku ci war a bokk di nga ci bokk enfin damay feddaliwaat woote bi nga xamante F24 mu ngi koy

Euh, euh, président Macky Sall mom mi bi muy engagé constitution bi diko wax demb ma ngi gis ben fiche bi nga xamanteni des ci référendum bi ñu ngi def les différents points yi nga xamanteni mom lañu wara voter et ci kaw ñu ngi gis question wu euh, candidature bi et il était clair que à partir de réforme bobu que nul n'a le droit de briguer plus de deux candidatures commençant par mom sax mi nga xamanteni moy di

donc tambali le 12 mai inshallah, pour que président Macky Sall mu xam ni dafa war ci limu gëna renoncer à une quelconque idée de troisième candidature ndax baaxul ci réew mi et c'est pas conforme à suñu charte ndeyu réew li que détenu politique yi mu bàyyi len ci limu gëna gaaw créer les conditions d'une élection yi nga maintenir, ni day lalu ci dëgg mu don élection yu leer